waaw ñu ngi leen di ñu ngi leen di fay di nuyu téléspectateur Leral TV di leen ndokkeel ci àjjuma bi di masawu ñi nga xamante ni ñoom ñoom la ñoo am ay mbokk yu des ci mbëkk mi euh, ni ñu demee barzaq yàlla na yàlla yóbbu leen aljanna macha allah. waaw xam nga euh, dafa am loo xam ne lislaam xam na ko ak loo xam ne aada moo ko xam. islam li mu xam mooy nit ki bu fekkee dafa faatu ak ci li mu mën a faatu ba ñu certifié ni faatu na parce que dee ay anam la nit ki dana dee ñu gis ko euh, gis euh, en chair en os xam ne jëmm jàngi nii ñu ne kii dafa dee ñu constitué ko vérifié ko xam ne kii dee na ñu certifié ne dee na ak koo xamante ni kii du ñu wax ne du ñu mën a certifier yi ni dee na mais dañuy juger ni dee na ñoom ñaar bokkuñu waaw kii dañ ko gis ni mu tëdd docteur bi ñëw palpe ko xam ne kii deena na docteur bi ne dee na kon certifié na ni dee na keneen kii dafay dee mais dañ koy juger ni dee na juger boobu ñu koy juger ni dee na nag ñun dañ cee gaaw maanaam sénégalais yi dañoo gaaw ci ne diw dee na parce que dem na ci géej gi rek dee na tout récemment maa ngi gis benn vidéo buy circulé benn nit bu nga xamante ni bii fa fañ doon gasee or fa la génne gannaaw ay ay weer est-ce que dëgg la wala du dëgg te deewul alors kooku bu ñu gaawoon ne dee na nañ ko ñaanal euh, loolu ñu tas jabaram euh, et cetera moo tax il faut que yoon mooy juger ni diw dee na à partir de jugement boobu ñu délibéré ne kooku dee na lépp lu ñuy def ginnaaw jugement boobu lañ koy def. mais ñii ñuy wax ne dee nañ ci mbëkk mi yëpp euh, ba léegi yoon jugé gul ne dee nañu parce que foog ñu wax ne dee na dañu am ay preuve walla ay lu ñuy teg daal ba wane ni kii war na dee waaw xam nga dëj ñaan la ci sunu aada dëj ñaan la ci sunu aada c'est-à-dire mooy nit ki faatu na jël nañ ko jébbal nañ ko boroomam ci façon bi nga xamante ni bi jot nañ ci koor gi ba mën koo defal li ñu war a defal nit jël ko suturaal ko suul ko parce que loolu jot nañ ci mais koo xam ne jotuwuñ ko dafa dee ci biir ndox mi jotuñ ci koor bi dañuy jugé ni dee na rek. bu ñu jugee ni dee na li ngay mën mooy ñaanal ko yàlla yàlla yërëm ko yeneen yi ci des nag ay togg nàkk ak def ay ay ay def lii am na yu bëri yu nga xamante ni bii delluwul ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu pénc moo ko moo ko xam mais bu doon yonent bee ko jàngale soo demee dëkk sàngam da nga ko fay gis wala nga dem dëkk sàngam gis ko fa mais dafay nekk loo xamante ni aada bi ñëw taal fii ay mbana fii ba fële rey nag lal basang teg bâche yooyu yëpp ay mbir la rek mais li am mooy ñu certifié ni dee na bu fi bàyyee jabar jabaram jooju ñu jël ko mu commencé jàpp idda bu fi bàyyee alal ñu jëlee alal ji seet na la ñu reportage bi loolu moo nekk lu am solo ba bëggoon laaj itam euh, ay am na internautes yu bari yuy laaj tey euh, maanaam ku ku dee ci géej wala ku lab ko ku am na ñoo xam ne dañ naan aljanna la dem direct am na ñoo xam ne léegi loolu laa bëggoon nga nga leeral ci. waaw yonent bi moo jàngale loolu dafa am maanaam yàlla moo baax baaxu du du du du du sanctionné deux fois yàlla baax mbaaxam moo toll noonu muy muy yërëm jaam ñi ñu wax ni. nit su deewee ci situation bi am na possibilité pour dem aljanna mais tekkiwul ne boo ca deewee dem nga aljanna parce que nit ki mën na ñàkk am gëm yàlla ñàkk am gëm yàlla dee ci situation boobu ku gëmul woon yàlla gëmoo yonent bi nga dem ci mbas mi nga dee ci lab bi dee nga ci lab te nee nañ ko dee ci lab day dem day dem aljanna mais est-ce que base bi ko war a tingoom tingoom na ko ba parewal wala tingoomu ko donc du ku dee ci lakk day dem àjjana directement du ko dee ci mbas day dem àjjana directement du ko dee ci lab day dem àjjana directement mais base bi mooy bi ngay dee ci lan la la fekk bu fekkee bi ngay am am nga gëm yàlla bi yóbbaale nga gëm yàlla bi su boobaa dana yàlla yërmandeem dana ñëw mais bu doon loolu kay day yomb parce que yonent bi nee na kuy accoucher des sa bakkan des ci da ngay dem aljanna mais day fekk am na lu jiitu mooy bu ñuy wax loolu dañ koy wax ci monde musulman bi ki nga xam ne nee na ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah respecter les chartes kooku la ñuy wax ne bu dee ci loolu mën na dem aljanna mais bu doon loolu kay sëñ bi mar d'Italie waaw message bi mooy wax naa ko léegi ci xutba bi ma doon def léegi man di discours ju maanaam dictionnaire jullit le mot découragé ak désespéré waru ci am discours jullit découragé ak désespéré munu ci am ci biir jullit aussi warul jàpp ni yàlla zone sàngam rek la ma mën a maye jullit warul jàpp loolu yàlla dafa yaatu olof yi nee nañu séentu asamaan jarul buuxante donc uti wërsëg jarul xaru parce que foo nekk yàlla fekk kii day am tool ñàgg kii am tool Tambacounda borom bi sotti ndox mi tawal Tambacounda tawal ñàgg kii bay tamaateem kii bay mboqam bu ñu paree kenn ku nekk jaay am loo yóbbu sa kër donc loolu ku nekk fa nga nekk xaar fa yàlla yàlla fekk la fa lii li may su ma amoon li may conseiller jeunes yi xëy na du ñu bokk ak man gis-gis ci côté boobu mooy bu kenn jël sa wërsëg nga jàpp ni diw moo la war a jox wërsëg loolu na ci xale yi bàyyi xel. gis nga koo aj sa bopp ci sa wërsëg mi ngeeg soxloom bu fajuwul ak tur boo ko mën a jox nag sa mii ma siita tur boo ko mën a jox président la gouverneur la chef de famille la chef de subdivision la am na soxlaam bu fajuwul kon kii faj soxla yi jëlal sa yaakaar aj ko ci moom en tant que ndaw boo paree na nga uti loo man conseil bi may jox xale yi nañu uti lu ñu mën a def pour seen loxo yi ñu am lu ñu mën def parce que jàng ba am bac te mënuloo manipuler caméra bu ñu problème la jàng ba am bac te mënuloo am loo def bu ñu la bëggee dimbali fu ñuy jaar donc état bi na ubbi formation professionnelle yi xale yépp fi ñuy wiire wu mooy ci commerce bi commerce bi àttanatul xale yi xale yi fi ñu wiire ju mooy ci pêche bi pêche pêche bi àttanatul xale yi fan moo fi des la terre mais nañu jël géej gi ñu transformer ndox mi yóbbu ko ci lii indi matériel yu adéquat ak agriculture en ce ñu jox xale yi ñu dem liggéey yi loolu mooy yoon xale bi bu mu wax ne duma ba ñuy dem Espagne fu ñuy dem ca tool ya di récolter ña ñuy liggéeyal dañ leen di ci tool yi la ñuy dem liggéey kon fii bu ñu ko fii defee jël matériel yu yu adéquat jox ko xale yi xale yi danañu am lu ñu jàpp loolu nag dañ ci autor dañ ci interpeller autorités yi ñu faciliter loolu xale yi mën a dem ci loolu mais bu kenn xale yaakaar ni ci lii mën na la jëriñ ah, bureau rek nga mën a xaje déedéet xale am na feneen fu mu mën a daane dooleem fu bokkul ak bureau te dana am lu ko satisfaire donc yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu benn xale jàpp ni li nga war a am egseegul lu jot yàlla dina ko def yonent bi dafa benn woykat dafa wax ne soo amoon ay laaf di naaw ci asamaan si di naaw dem ba ci asamaan si ngay ut kaasu ndox bu nekkul sa chance pour nga jot ko yàlla du la ko jox même bu fekkee am nga ay laaf kon dem am dem fële te yàlla newul sa chance foofu la euh, j'aime bien ci entre guillemets Bougane Gueye Dany ce qu'il a révélé ci semaine bi passée nee na il a fait quatre ans en Amérique di fayee ko chaque semaine huit cent mille huit cent mille chaque semaine donc mu bàyyi ko fa ñëw fii xoslu fii ba tekki li muy tekki donc kon yàlla fépp la nekk. mënoon na toog ci huit cent mille rek mais kon li mu employé ci ay nit du leen employé donc kon loolu mooy mooy gëm sa bopp vraiment gëm sa bopp na xale yi gëm seen bopp. umma islamique bii li ma leen di lancer comme message mooy ñu xam ne islaam suñ koy xeex lay dem buñ koy xeex ci lay gën a dem ñii xeex l'islam nañ ñuy gën a xeex ñuy gën di am fulla am fayda. wax naa ko keroog ci bi bi rassemblement bi amee fële ci obélisque euh, benn waay laaj ma ma ni ko bu ñu amoon kurus mu dagg Emmanuel Macron nasal nanu ko lan mooy kurus bu dagg bi mooy euh, ay musulmans dispersés musulmans yu dispersés léegi Macron fexe na ba ressembler nañu ñëw nañu daje fii autour de l'essentiel li essentiel mooy kan le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ak cadre bi mu ñu tënk mooy l'islam ñun ñëpp dajawaat nañu ci loolu kon nañ ñuy gën di saaga ñuy gën di boolo comme lu ñu am keroog saaga ko may nan ñuy gën di saaga ñuy gën di booloo. <laughs> waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu.